soutenir à la pléthore de de de de de de candidat à la candidature est-ce que xam nga dañ fi indi parrainage gars yi yuuxu euh, à la nu mu tudd dans le dans le dans la réalité du processus beaucoup de gens se disent que parrainage bi quand baax na fi mais par rapport à ces retraits de fiches de fiche de parrainage tant que gis naa ku proposé mu ne exemple pour nga retirer fiche de parrainage dañ la war a imposer nga déposé une caution de 15 millions pour barrer la route à ces nombreux farceurs. bon man xam naa la bëgg a wax ñii ñëpp li ma jàpp mooy. candidat yi jàll parrainage bi fii Sénégal bu matee sept bari na nga ne ma wax hmm. bu ko matee wala mu ëpp ko dañ koy ëppee du bari du bari waaw alors moo lii lépp moom je pense que on va vite la fin de la création parce que man li ma jàpp ñi am parrainage fii bu matee sept wala huit wala neuf loolu sax bu ko matee dina ma jaaxal. dina dina jaaxal.